Euh, monsieur le ministre euh, de l'Intérieur euh, bind naa leen diggante daaw ak tey fukki yoon ak ñaar dëgg la boobu nekk go ministre de l'Intérieur mais les hommes passent les institutions demeurent ci bind yooyu bind naa le 22 août pour wax la ci payooru ASP yi tardé 22 boobu payooru weeru juillet yu ASP yi da ngeen ko fay le 21 août facture courant du xaar facture ndox du xaar luwaas du xaar ba 21 août fexe leen ba bu mu amati ASP yi nañu jot seen payoor waxtu bi mu waree monsieur le ministre bind naa la également le 5 mai boobu nekk goo ministre euh, plutôt de l'intérieur bind naa le 5 mai 2023 pour naxarlu juróom benn weer arriéré de prime yi ngeen amel policier GMI yu Kolda te toll ci plus de cent GMI ngeen amel leen benn ñaar ñett juróom benn weeru prime du dëgg du yoon ñun suñuy prime du tardé seen prime du tardé donc prime policier GMI yi bu mu tardé monsieur le ministre dégg naa am na yenn policier yoo xam ne benn tenue la ñuy am ci at bi benn béret benn dàll benn tenue ak liggéey bi ngeen lay bi ngeen leen di jox ñu ñuy tongali fu nekk ci Sénégal benn dàll benn béret benn tenue toute l'année est-ce que mënu leen xool naka ngeen di améliorer seen condition monsieur le ministre dama la bind le 20 février la même lettre ma bind la ko le 14 avril maa ngi ci am tontu mois de euh, mois d'octobre juróom-ñetti weer tontu wu leen ma waaye tontu nga ma quand le 11 le 24 octobre bii passé maanaam damaa xaar juróom-ñetti weer balaa ma am tontu ma la doon wax ci 11 chefs de division yi nekk AFP. onze chefs de division yoo xam ne seeni moroom chef de division même grade même tout ëppale nañ leen quatre cent mille francs gën saa ne la lu waral xaj ak seen boobu nga tontu ma ne ma sur les discriminations salariales à l'agence de la sécurité de proximité je rappelle qu'aucune discrimination salariale n'y est constatée or monsieur le ministre j'ai un recours administratif adressé au président du conseil de surveillance de l'ASP dont les neuf membres ont copie J'ai le PV de rencontre entre les 11 chefs de division lésés avec le DG de l'agence. J'ai un document portant proposition des chefs de division lésés adressé au DG pour une résolution à l'amiable. nga bëgg a les yeux dans les yeux ne ma amul discrimination salariale may naa la 24 heures soit dañ la nax soit da nga may wax lu la neex bu dañ la nax may naa la 24 heures bu dee defoo ko dans deux jours je publie tous les éléments qui montrent que vous n'avez pas dit la vérité. Voilà pourquoi nous n'avons aucune confiance au ministre de l'Intérieur pour organiser la prochaine élection présidentielle.